sëriñ tubaa bi nga xam ne moom lañu yaakaar diggam ak rasulullah sallallahu alayhi ziyaare ji ko yegg na ci foo xam ne gisaguñu kenn ku fa mës a yegg ci cofeel mu mel ni loolu lépp nag ay jumtuwaay la yoo xam ne daf ñuy soññ ñun ñi ko yaakaar ba ci jataayu tey bii ba ñu xam ne ziyaare Cheikh Muntaxa warteef la ci bépp taalibi aouzu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 mu nekkoon ab acteur principal boo xam ne kenn ku ne gis na jëfam nekk koo xam ne royteef la di nuyu Serigne Lamine Diouf mi nu feggool ak Serigne Ahmadou ture mu baax mi di nuyu kilifa yëpp waaw di am mbégte nag ci jataay bu am solo bii nga xam ne euh, boole ngeen ñu ci ndax boole ngeen ñu ci mooy da ngeen a woo képp kuy ab taalibe woo képp kuy ab jullit waaye ngir lan wone euh, yoon wi nga xam ne ci la ab taalibe war a jaar jëf ji dafa làmboo ak jàngale te loolu day mel ni yàgg na ci doxiinu kuréel bii di xisbu tarqiya ci ñaari fànn moo xam muy nazariyan aw amaliyan moo xam muy aw nazariyan aw tatbiqiya lu mu ci mën a doon rek muy lu ñuy pratiquer wala lu ñuy théorie ku ci xool doxiin yi nga xam ne yéen a ngi koy dox yéen a ngi ci jàngal àdduna bi yépp ci wow melokaan ñëpp naw leen ci ñëpp sant leen ci ñëpp gërëm leen ci waaye bisub tey bii nag ñu woote bisub jëmee ko ci Serigne Touba loo xam ne lim làmboo dafa bari ndax nit ki bu fekkee ne euh, ziyaara dafa bokk ci liy tax nit mën a jariñu xam ngeen ne ku tedd ki Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moom waxoon na ne bu ñu jëloon asamaan si ak suuf yëpp duy ko ak wurus ak xaalis mu ne giñ naa ci yàlla dem siyaare ji sama soppe ba rasulullahi moo ma ko gënal wax ne it dana ma metti lool dana ma tiis ci ma nefi ba jóge fi ci zahir te dewuma siyaare ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon day am dogu mooy euh, solo soosu nga xam ne ziyaara am na ko mu teg ko ci charte yi nag bu ñu demee ci bayit yooyu mu tabal ci biir ra'iya nga xam ne da cay jàngale ne kat kon ki nga sopp euh, ziyaare ko daf laa war te dañuy wax ne al mahabbatu hi su taa maanaam cofeel mooy fondement ak topp maanaam cofeel lii jëf ji jëpp cofeel la ko laltaay te cofeel ci la ñi nga xam ne dañuy jëkkalante ci la ñuy jëkkalante moo tax ñu koy tuddee xuutul xuluba gi euh, liy dundal xol euh, di dundal ruux loolu mooy cofeel cofeel googu nag sëñ Tuubaa da caa wax ne zurul man way shottat bi ka daaru ca noonee mu ko indi ci abyaat yooyu ca biir euh, ra'iya ziyaare jël ki nga sopp doon ko ne këram wala dëkkuwaayam sori na la lu tax nit ku nekk kam bëgg daf koy siyaare ji waaye laa yamna annaka baadun min ziyaaratihi innil muhibba liman yuhibbu zawaar kon sori gi muy am diggante du tee nga war koo siyaare ji sëñ tubaab fu mu mas fekk fu mu mas a nekk mag ñi fekk nañ ko fa siyaare ji ku ñuy kallu pepp la daan am ñii ab gàtt la ñu daan am ñii benn dërëm lañu daan am jara ay téeméer wala ay junni kilomètre ci seen benn dërëm boobu ngir yët ko Serigne Touba euh, nga xam ne dana da nga ci gis koo xam ne la muy am ci dugub la mu koy mën a def mooy benn mu def ko sangal wala mu wut def ko cere ngir yët ko sëñ Touba fa mu nekk loolu nag lan lay tegtale mooy ci mag ñu baax ñoo ñu toppoon sëñ Touba dafa wax ne euh, zuril habib alladi yaqulu zairuhu ila tariqi najaati wal karamati saaka albakiyu alladi albaari faddalahu ala kathirin mi man xaazul maziyaati loolu sëñ Daaru Asan Njaay ko xoon moo ne demal ziyaare ji ki nga xam ne day wommat ki koy saa yu ñëwee ci moom di ko siyaare da koy wommat jëmee ko ci ala ila tariqi najaati wal karamaati da koy yóbbu ci yoonu jub ak yóbbu tedd nga daana boo bëggee xam kooku nag saakal bakki yullasil baari faddalahu ala kasirin man hazul maziyat kooku mooy ki nga xam ne moom la yàlla gënale te mooy sëñ Tuubaa ci euh, mag ñi it keneen ko wax lu mel noonu mooy sëñ Mansour jaw dane saakal xadimu lazi man zaarahu li huda yahwi saadata wal bushra min allahi dane sëñ Tuubaa de mooy koo xam ne saa yoo jógee dem di ko ziyaare ji danga nga làmboo mbégte waaye da nga làmboo ak mucc kon jóg gi nga xam ne kuréel bii di xisbu tarqiya ak taxawaay yu am solo yi nii yëpp yëpp jóg jëm ci euh, di siyaare ji ku tedd kooku Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne sunu borom def na ci moom loo xam ne mësul am ci benn mbindeef nga xam ne kenn xamul lim lamboo lam yadri insun mislahu fi ma xawa wal kullu xaara li sha'nihi al maktum kon buy jógee ziyaara nga xam ne yóbbu nga sa jëmm yóbbu nga sa xol bi nga xam ne mooy euh, sa sa sa sa moo bi doxal sa lépp yóbbaale nga ko waaye yóbbaale nga sa alal nga xam ne loolu boo ko dajalee mooy tënk charte yi tax aji ki nam ma egg ci boromam wala mu bëgg am ngërëm la mën a jóg wuti loola benn joxe gi nga joxe sa hadiya lan la lan la am ban wàccuwaay la am yonent bi sallallahu alayhi moo ne woon dee leen addiyal ndax ngeen bëggante kon dana jur cofeel gu ma lay wax te cofeel gi bu laltaayoo rek wammat nit ki ba tax jëfam mën a sotti ci digganteem ak boromam rawatina euh, jàngale ko ci jamono bii lu toll nga xam ne du jamono yi bàyyeeku du jamono yi rek sëñ bi sëñ bi sëñ bi waaye da ngay boole di wax ba noppi di jëf bu fekkoon ne da ngeen a toog nii rek waxuñu benn message ñu ne ñii ñooy ñan ñu ne kuréel Hizbut Tarqiyyah yi nga xam ne lu ñuy soxlawoo ci ak nit mu ngi ci booy xool ay professeur borom yi xam-xam ay jàngalekat ay liggéeykat ku nee nga ci. ñu boole bu ñu doon jàng xasaayid yi doy na métier ci ñoom ndax dara gënu rëy yëkkati xasaayid yi ak yeneen taxawaay waaye ñu boole ci nag ne at mu jot wala jamono dana ñëw ñu boole la ñu am ak lañ man lépp dama teewaat ci kanam Serigne tubaa ziyaare ko jébbale addiyee yeesluwaat nga xam ne waxtu wu nekk mi ngi dox ci ndigal waaye waxtu wu ne mi ngi dox ci ak yees di dox ci ak fàttalee loolu nag ku am ay gët tey xool mën nga caa jànge mbirum Sëñ Touba. continuité bi ci nekk nga xam ne waxtu wu nekk tey defe naa jóge sa kër ñëw fii ci jumaa ji moo gën a yomb dem gànnaar te ku dem Sarsara bërki dem bu yaakaar naa bis ni tey rek maa ngi woon gànnaar ku dem Sarsara xool mag ñi ba ñuy jóge ci réew mii nga xam ne doone rek Kajoor waaye Bawal ak Saalum ak Waalo adduna bépp dafa xëttaloo ndax sëñ Touba moom la suñ borom defal fu mu nekk ñu fekk ko loolu benn naar waxoon na ko fa fi ay ardin kunta yantabukal wara walaw xalfa ardin hindi wa siini wa turki ida kunta fi barrin atatka rikabuhum wa in kunta fi l bahr wa ala l fulki bu fekkoon ne ginnaaw Inde wala Chine nga nekk nit ñi da leen ñëw fekk la fa bu doon ci biir géej gi la it wut ay loocooki gaal fekk la fi xuus bu dee foo mën a nekk nu tànk kon foo mën a nekk nu fekk la fa yow Serigne Touba te mag ñi dañ daan jóge fii laxasaayu di di yu metti nag ndax yow man ngaa ñëw booy jóg sa oto wala nga am ku la indi waaye ñoom dañ daan ko xottaanu tarix yi ay agresseurs yoo xam ne dañ leen daan dóor di leen jam di nangu seen i alal ak ay rabi àll yu leen doon dogale ndax am na ci mag ñi koo xam ne bi muy dem gànnaar ànd naag njabootam ba ci yoon wi mu rëdd aw rëdd na leen bu kenn jéggi fii dugg ci biir àll bi moom bi muy dellu si dafa am lu ko lu mel ni euh, am yeew di fut moom léegi-léegi mu bëgg koo daaneel léegi-léeg bi mu ñëwee ba jub mag ñi ci seen dégg ndigal rëdd wi mu leen rëddoon na bu ko kenn génn kenn génn rëdd woowu ci ñoom waaye mu laaj leen ndax kenn ci yéen yor na saatu am ci ko ko jox mu mu jàpp ci bopp loolu di nuru am yeew ba rendi ko bi mu ko taggalee ba noppi nag dox di ànd ak ñoom kenn ci taalibe yi laaj kooku sëñ ma parte silla la tudd muy sëñ ma parte silla diiwaan am ci taalibe ku ko laaj ne ko waa silla lii la nga laxasu woon lu mu doon mu ne ba jàppee leen ko am yeew daan na ko lenn li yi yëpp yi di dogale ñay jóge ci réew ma di siyaare ji sama sang bi Ahmadou Bamba kooku laa doon jëflanteel nag ba lii tax kon ñëpp leen doon dogale waaye du tee ñu daan xëtt àll bi am na ñoo xam ne jam leen ci ay xeej mag ñi ba xeej yi sar ci seen ngir ñu nangu seen alal yooyu waaye teewul ñu yanu seen gaal def seen tànku neen ya fekk Serigne Touba fañ fa ñu nekk kon tey bu ñu demee ba àdduna egg ci ubbeeku ci bunt yëpp waxtu wu ne am njàngale di ci am mooy day yeesal pas-pas boo xam ne ndax sëñ Touba kat képp ko xam ne ñëw nga fi moom ñàkk xam-xam mu teg la ci yoonu am xam ku ñëw ci moom ziar ko ànd ak taq ak tilim mu fóot la ba nga set ku bari bakkaar boo ñëwee fi moom mu raxas la ba nga set ci kon lii jëf ji nga xam ne waxtu wu ne bis bu tarxiyee ñu ngi koy taxawee di ko liggéeyale Serigne Touba képp koo xam ne daal ndamul Serigne Touba sa ndam la neex na la yow béggee nga lii ab murit nag li war ne ci xolam mooy lu mënul ku ko ko defal mu sant ko ku mën a doon ci àdduna war ngaa yéene sëñ Tuubaa mbooloo mu mel nii ndax kat ku sañoon am ko fa sa ñoñ loolu dafa mat di bàyyi xel li may wax gaa ñi ne leen yonent bi ku bëgg yonent bi war ngaa bëgg sëñ Tuubaa ndax ku ne yéene ne rasuulaay jëwriñ ju mel ni sëñ Tuubaa mi yàlla boole wut sëñ Tuubaa rasuulaay ak ab yaafus da ko boole koo xam ne ku dul ki ci kanamam di rasuulaay moo la man ku dul rasuulaay rek sëñ Tuubaa la man ndax mboolem ñi doon liggéey rasulaay durub leneen ne ñoom ñëpp xaddamani llah ala alquddaami bil muntaqal musabbitil aqdaami kon kooka jiitu na jëwriñ ju mel noonu na ku ko am looloo waral bu ëllëgee sëñ Tuubaa ne ne Rasuulullaah mooy jàpp ci loxoom di ko puukare woo ci yeneen yonent yi ne leen ku ci amoon jëwriñ ju mel nii waaye defe naa mbooloo mu mel nii bu ñu teewoon ca bis penc yowmal xiyaamatul akbarit ca kanam sëriñ ak melow wi xasida yi riir melow mel nii sëñ Tuubaa bu joxeñee ne ana ku ci am ñu mel nii yar leen jàngal leen ñu boole liggéey lu ñu am joxe boobaa sëriñ Tuubaa loolu siggi la ci moom tamit kon loolu la ñëpp di sàkku yàlla yàlla gën leen a kattanal